alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ñëw ci bindu tay bi jegleel ko lii di la ñu koy wax salaatu taraweex mu lu am solo ci koor gi bu dul koor sax borom bi tabaraka wa day tagg jaamam yi nga xam ne dañuy jóg guddi di màggal guddi yi ci ay naafi naafila buñ demee ci sooratul furqaan danañ fa fekk buur bi tabaraka wa taala di wax ne walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa di tagg jaamam yi nga xam ne dañuy jóg guddi di màggal guddi yi ci ay naafila ak i sujjoot ak sàbbaal seen boroom naka noonu buñ demee ci soratu as-sajda laayab fukk ak juróom fa fekkaat fu buur bi tabaaraka te taala di tagge jaamam yi nga xam ne fu guddi jote ñu tàqalikook seeni lal ngir màggal guddi yi ci ay julli mu tagg leen ne ñooñu day yiwu rëy la leen dencal ndax seen jëf yooyu ñuy def ma ngay wax ne tatajaafa junubuhum an ilmadaajici yadcuuna rabbahum xawfan wa tamaca wa mimma razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsum maa uxfiya lahum min qurati ayunin jazaan bima kaanu yacmaluun mi ngi wax ne jaamam yooyu di màggal guddi yi ci ay naafila yiwu rëy la leen dencal ngir seen jëf yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne julli gi gëm ginnaaw jullik farata mooy jullik guddi waxaat ñu feneen ne dee leen tasaare am nuyoo ci seen biir tey joxe aw ñam tey jokk seenu mbokk tey julli ci guddi gi bu nit ñi dee nelaw su ngeen ko defee day da ngeen tàbbi aljana ci jàmm ayuhan nasu afshu salama wa atcimu taama wasilu l arhama wa sallu billeyli wannaasu niyaamun tadxulul janna bi salam mune lol su ngeen ko defé da ngeen tàbbi aljana ci jàmm bur bi tabaaraku wa taala dafa tag ñi dundal guddi yi ci ay julli rawatina weeru koor weeru koor moo gën a tedd ci weer yépp bu dul weeru koor ginnaaw bu dul weeru koor ci la borom bi tagg way julli ñi bu dee weeru koor rawatina ndax weeru koor moo gën a màgg weer yépp yonent bi sallallahu alayhi wa ngi wax ne man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min ku joxe naafilay kooram ci anam yu sell ànd ak yaakaar ci tuyaaba su boobaa boroomam dana ko jéggal bàkkaar jiitaloon yépp ku taxawe ay naafilaam ànd ko pas-pas bu sell yaakaar ne boroomam ak yiw ci boroomam suñ boroom dana ko jéggal lim jiital ci ay bàkkaar loola kon ngëneel la naafi la nag sunna la ndax yonent bi saa sallam def na ko suñ yaay Aïcha radiyallahu anha nettali na ne yonent bi sallallahu sallam julli na naafila ci koor mbooloo julli ci ginnaawam guddi ñaareel ga mu génn di julli mbooloo ma gën yok, yokk mbooloo ma nekk ci ginnaawam gën a yokk guddi ñetteel ga génnul mbolo mi ñëw diko xaar génnul bam mu suba mom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne len bi gis na len waye lima téré wona génn bëgguma wona génn ñi faratal ci yéen nafila lolo tax gennuma ndax mbolo mu bari ma ñu déggé ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def nako foofa tamit danañ fa jàngate danañ fa lañ fay jànge yërmande yi yonent bi sallallahu alayhi jum am ci xeet wi yërmandeem ju rëy bi bi nga xamee bi nga xamee ne Seydina Omar ñëw na ci xilaafa gi radiyallahu anhu euh, dugg ci jàkka ji gis nit ñi di julli par benn ci la ci la digale Seydina ubay ibnu kaab radiallahu anhu ñu koy julli julli mbooloo ñuy julli naafila mu digal ko ñu koy julli julli mbooloo kon jëfi yonent bi saa sallam def na ko bàyyi ko Seydina ñëw def ko te yonent bi saa yonent bi sallam dafa wax ne lépp loo xam ne def na ko moom sunna la lu ay ay ay xalifaam def tamit loola sunna la kon naafi la na la ndax bi ko yonent bi saa sallam defee bàyyi ko ngir bañ ñu farataal ko ci xeet bi Seydina Omar bi mu bi ñëwee ci ak xilaafaam dafa digal dafa digal ñu ñu dafa digle ñu koy julli julli mbooloo kon sunna la su am solo moom naafi la boroom giir yi nag boroom xam-xam yi dañoo wuute ci limub rakkaay yi am ñu ne ñu ëpp ci boroom xam-xam yi daal ne eh, ñaar fukki rakkaa la ndax eh, ñu tegtaloo ci ndigalul Seydina Omar lim digal seyd na Ubay muy julli ñaar fukki rakkaa kon eh, al imaam Ahmad ak al imaam Shafii ñoom nee na ñaar fukki rek lañu war a julli naafila bu dee imaam Malik nag moom ci biir ngiram dafa am ñaari wax am na fu mu waxee moom imaam Malik ne fanweer la ak juróom benn fanweer ak juróom benn soo ca dollee safaak wittar muy fanweer ak juróom ñeent am ab taalibeem bu ñuy wax ibnul qaasim taalibe bu Malik nettali ne ñaar fukk la ak ñett maanaam ñaar fukki rakka julli ñaar fukk sëlmal julliwaat yeneen ñett muy safaak wéttar boo ko boolee muy ñaar fukk ak ñett kon ñu gis ne ngiru Malik ñaari wax am na ci am na Malik wax na fu am na fu mu waxee ne fanweer ak juróom benn am ab taalibeem bu ñëw Euh, am na fu mu waxee moom Malick fanweer ak juróom-ñeent am taalibeem bu ñëw ne euh, ñaar fukk ak ñett wax li yeneen boroom xam-xam yi wax Ibnul Qasim ab taalibeem am ñu ne juróom-ñetti rakka loolu lenn ci waa kër imaam Ashaafi ñoo ko wax ak lenn ci waa kër al imaam Abu Hanifa ñoo ne juróom-ñett la am ku ñëw. ne amut ab limit amut ab dayoo nit ki jullit bi su julli woon ñaar rakkaa sax am na am na naafila loolu al imaam as-Suyuti yi moo ko wax kon ñu jàngate ci ne wax yi bari na waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi nee na ñaar fukk la nee ñaar fukk la ak ñett julli ñaar fukk julliwaat yeneen ñett safaak wéttar am ñu ne amut àpp nit ki bu jullee ñaar ràkk rek am na naafi la am ñu ne juróom-ñett la imaam Malik ci biir ngiram am ñaari wax am fu mu ne fanweer ak juróom-ñeent boo ci boolee sax ak wétër am am am ab taalibeem waxal ko ne ñaar fukk ñett waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi daal ñaar fukk ak ñett yooyu lañ jàpp nga xam ne fukki sëlmal ngay sëlmal julli yeneen julli yeneen ñetti ràkka julli ñaari ràkka muy safaa nga julli beneen ràkka muy wëccër sopp nañ e, soxna yi teewe ko su fekkee fitna nekku ci ndax yonent bi saa sallam moo ne woon bu leen tere jibéeri yàlla yi jàkkay yàlla yi laa tamnau ima allahi masajid allah bu leen tere soxna yi jàkkay yàlla yi loolu lañu indi woon ci naafila di leen dig daje ci beneen bind wasalaamu aleykum wa rahmatullahi